waltaatifi bi nadratin tati lana bi safari mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen wàccee seen wàccuwaay kanaan ñi delsi ci darsi biñ doon ànd ak yéen muy ruhul ëdëb mu mel ni ñi ngi taxawu ndoon suñ darsi bi passé bàyyi ne bu fekkee yaa ngi sàkku mbir moo xam ne ñàkk nga ko lor yi ci nekk moom la yàlla xam te yow xamoo ko moom yàlla dana gis loo xam day lor jaamam mu jañal ko ko mu bañ a xeg si si jaam bi jaam bi nekk jàmm kon nag bul gis yàlla xañ la mbir rek ngay xas sunu borom wala ngay wax naka sunu noonu wala sax ngay dem ba dégg nga sa imaan di bëgg yàqu ngir loolu bu ko def soo ko defee da nga gàccewu te doom aadama su xamoon lan mooy rahmaan bu dajeg hay dafay reetaan moom doomu aadama bi kon gis nga law yaalamil law yaalamul insaanu insaan bu njëkk bi mooy insaan bi nga xam ne insaanul xayawaan la wala insaan bi nga xam ne jaahil la wala insaan bi nga xam ne xamul boppam réeré réeré na boppam kooku noonu su xamoon lan mooy rahmaan yalqa surura daahikan insaan su boobaa bu dajee xay dafay reetaan ndax dana mujj nekk yegg ci insaan kaamil insaan kaamil mooy ki nga xam ne lépp lu ñëw rek dana xam fu mu koy delloo ay sax la koy mujj soppi moo tax bàyyi indi ñaari insaan foofu laaw yaalamul insaanu mar rahmaanu yalqa surura daahikan insaanu insaan bu njëkk bi mooy insaan bu doxee di bi am ñaareel mooy insaanu kaamil kon nag yàlla yàlla def ñu xam lanay rahmaan kon ñi ngi commencé si laa tatlubil izza lada alxalqi bila taazuzin inda malik la wala la tafran bi anumin unimta wafra bi man anama in aqilta fa kullu niamatin tazulu duna man asdafa zaka albaqi fi kulli zaman la taqiranna musliman la taskura ayba mri'in wal aybu minka qad yura فرب زيت تمرين أخبر ولو أقسم بالمولى ابر قروا لا تدرن مسلما ولو ظهر در على يدي دوبا فاغتفر فإن زلق عباد الله فلا تدر أقي عباد الله ولا سترضى من يدر عبدك وإن أصاب تقين ربك بايني لا تدلبي بلسك العزة تدنج لدى القلق في من دفي بلسكو نيتا الله bul sàkku am bës ci kanam doomu aadama yi bul sàkku ciiwute ci doomu adama yi bul sàkku xabool ngir doom aadama yi bul def dara ngir doomu aadama yi tax nga di ko def la dal xalqi fi mindee fi déedéet bila taazuzin lu da ngaa sàkku teddlu indal maliki fa yàlla de doomu aadama yi dégg nga bëggee ñu jublu la wallaay bu fi ta yàlla te jublu wuñ la ngir yàlla bis yi ñëw dañ la wëngeetu de kon nag booy ànd ak ñoom àndal ak ñoom ci yàlla rek del jëflante ak ñoom ci yàlla di jàppante ñoom ci yàlla bàyyi bàyyi wante ci yàlla lépp looy def rek def ko ngir yàlla kon looy sàkku rek sàkku ko ci yàlla te gis nga boo suufee suufee loo ngir yàlla yàlla moom moo lay yëkkati mu neex doomu aadama yi dañ la jublu mu naqa di leen danañ la jàpp kon nag jarut nekk di defi pexeeg ya ca aaju ngir bëgg am te dengi ci doomu aadama yi déedéet xindal maliki fa yàlla laa bul def loolu wala bu ko jublu bul jublu doomu aadama yi jublu la déedéet bul jublu doomu aadama yi jàpp la déedéet bul juddu bu jublu teraanga yi ci kaw doomu aadama yi déedéet lépp mi ngi ci loxol yàlla jublul yàlla rek bu la yàlla teralee ñëpp teral la laa tafrahan bul bég bi anumin ci xéewal ga nga xam ne onim taa xéewale xéewaleef na la ko wafrax na nga bég bii ban ca ka nga xam ne an am mooy xéewale ina xaqiltaa ndegam am nga xel kon nag bul bég ci xéewal gi nga xam ne yàlla xéewal xéewal giñ la xéewal xam naa bag maa ngi béggee bag bi xam naa liggéey maa ngi béggee liggéey bi xam naa kër maa ngi béggee kër gi xam naa oto bi maa ngi koy béggee déedéet bul bégee kër gi ci boppam waaye nag wafaa na nga bég bi man anam ci ki ko jox ki ko jox kan la mooy yàlla ndax kat gis nga koo xam ne yor nay alal ju bëri yor nay milliard ñi teg ko feebar boo xam ne bu sañoon joxe milliard am yëpp dégg nga te wér waaye mënul wér gis nga koo xam ne lim yor ci aduna du jeex waaye nag gis nga léegi mënut a lekk dara lu muy ruy ruy sax lañ koy jox di ko ko xol moom sax munu xol boppam ngir mu jàllale ko du ko mën a jàllale kon nag xéewal gi nga xam ne am nga ko di ko bànneexoo bégalee bégeel ki nga xam ne moo jox xéewal gi nga koy bànneexoo waaye nag xéewal gi ci boppam bu ko bégee ku la jox kattan li yàlla bégeel ki yàlla mi la jox kattan gi waaye kattan gi si boppam bu ko bégee ndax bisi ngi ñëw dégg nga da nga nekk màgget bisi ngi ñëw da nga ko ñàkk ñaari tànk nga daan doxee léegi yaa ngi doxee yokku nga si beneen tànk muy ñetti tànk bu fekkee dégg nga ay bëñ yu dëgër la bisi ngi ñëw da nga bu dee nopp yu neex la bisi ngi ñëw da nga ko ñàkk bu loo fi yàgg rek bisi ngi ñëw da ngay tëx ndax innal jadida ni isa mastawla ya ala jadidin adna yaaw lil bila kon nag na nga bàyyi xel loolu laa tafraan bul bég bi anumin ci xewal gi nga xamne on imta xéewaleef nañ lako ko wafra na nga bek bi man ci nga xamne ana moy xewale gis nga sax lu melni lo mën ta am rek da jàpp ne loolu ki ko joxe mooy yàlla kon yàlla moom nga war a bégee waaye jëmmi xéwal gi nga moom waroo koo bégee in xaqiltaan da nga am nga xel di xelaat da nga am nga xel di setantal kay xam nga ne lépp mi ngi ci loxol yàlla ndaxte Mawlaay Cheikh al Islam doon na wax ne dégg nga iyaaka naabudu wa iyaaka nastain iyaaka naabudu ñooñ am la iyaaka nastain dégg nga ñooñ ñooñ dégg nga ñooñ maarifatu la ndax ñoom aari ñooñ aarif la mooy ñi nga xam ne xam nañu ñoom defuñ dara xam munuñ munuñ munuñ dara dégg nga mënuñoo continuer munuñ munuñoo def dara lu mooy lépp mi ngi ci loxol yàlla kala ndax su fekkee ne par exemple dañ la la jullil dégg nga ndox mi ngay jàppee mënoo mënoo jàpp mënoo julli taamoo njàpp ndax yonent bi saa sallam neen duñ nangu ak julli dégg nga taxamut laab ndox mi nga jàppee ko la ko jox nga ne yàlla kattan nga jàppee ko la ko jox nga ne kon yow jullee goo mu ne la jullil nga taxaw si suuf si suuf si nga taxaw ngir julli ko la ko jox yàlla mu ne rukoowal nga rukoo ko la jox kattan li nga rukoowee yàlla kon yow defoo dara soo xoolee da nga gis ne kon yow defoo dara kon julli gi bu ko bégee waaye bégeel ki la julliloo dégg kon xéwal gi bu ko bégee waaye bigal ki yore xewal gi jox lako in in xaqilta ndegam xam nga xel su fekke xam nga xel kay xam nga ne yow defo de nga defo dindi wo mo tax daal fa kullu niamatin ndax gépp a xéewal tazulu dana dëñ too gépp a xéewal day jeex su fekkee taar lañ la jox bisi ngi ñëw dégg nga màgget dana ñëw su fekkee kattan la bisi ngi ñëw màgget dana ñëw su fekkee ne xalal la bisi ngi ñàkk ngi ñëw su fekkee wér la bisi ngi ñëw feebar a ngi ñëw su fekkee ndaw la bisi ngi ñëw magee ngi ñëw ndax moo tax yonent bi saa salaam waxoon na ne ixtanim xablan xamsa xablin xabla xamsin na nga màng juróom balaa juróom a ñëw sa ndaw gi góorgóorlul balaa mag ñëw dégg nga sa am jot gi góor góorgóorlul balaa ñàkk a jot ñëw sa wér gi góor góorgóorlul balaa feebar a ñëw dégg nga saxam gi góorgóorlul def lu baax balaa ñàkk a ñëw kon saa foo toll rek na ngay fàttaliku yàlla day ànd ak moom jamono ju ne fa kullu ni'matin na xam ne bépp xéwal bu dee la ne jàppal ne bisi ngi ñëw da nga ko ñàkk tasuulu gépp xéwal gu la yàlla jox rek dala ko xabale dala ko xabal waaye mayewut duna man walis ki nga xam ne asda mooy sa mbërtal xéwal yi kii sa mbërtal xéwal yi kan la kooku mooy yàlla kooku moom fa zaaka kooku albaqi moo fii des fii kulli zaman ci bépp jamono jamono ju ne rek yàlla moom mi ngi fi du toxu du randu ndax bokkoon na ca alqidam jiitu gi mu fi jiitu dafa war ci yàlla su fekkoon am na leneen lu fi jiitu yàlla kon loolu mooy bind yàlla su boobaa kon mooy doon yàlla waaye nag jiitu fi yàlla jiitu mooy wane ak njëkkam naka noonu bu ñëpp dee yàlla moo fi des alwaarisu yàlla mooy ki nga xam ne mooy mu àqir mooy waaris bu ñëpp dee moom rek moo fi des bu lépp demee rek moom rek moo fi nekkoon maa dégg nga moo tax kon dafa bokk ci melokaanam yi loolu dafa war ci yàlla su fekkoon ne dafay dee wala mu xam lu ko fi mujj kon lu fi mujj yàlla loolu mooy far di doon yàlla kon bind yàlla kon loolu lu jomb la kon yàlla bokk na ci melokaanam yi jiitu bokk na ci melokaanam ya kattan bokk na ci melokaanam ya dégg nga bu ñëpp deexee mu des fii bokk na ci melokaanam taxaw ci boppam comme nañ ko jàngee woon rek yajibu lillahi lwujudu walqidam kazal baqa walxinan mutlaqun am qul fuhu li bila misal wa wahdul zati wa sun wal fial dégg nga kon nag bàyyi ne fa kooku bu ñëpp dee bu ñëpp demee albaqi moo fiy des fii kulli zaman ci bépp ak jamono kon booy jàpp jàppal yàlla sooy bëgg bëggal yàlla sooy xam xamal yàlla laa taqiran léegi nag gannaaw nekk nga loolu xam nga ne xéewal gi ñëw gis nga bàyyi ba la njëkk wax mooy laa tadlu bi bul sàkku ñaareel bi laa tafra bul bëgg ci xéewal gi ñu la xéewalee muy ñetti laa déglul beneen muy ñaari laa beneen bi mooy laa taqiran waay waay bul xeeb musliman benn julit bul xeeb benn julit julit yëpp na nga xam ne ay mbokk lañ julit yëpp dégg nga benn lañ ndax kenn gënub kenn ñun ñëpp ñi ngi jógee koo ci aadama aadama mi ngi jógee koo si suuf kullukum min aadama wa aadama min turaab kon kay kenn gënub kenn yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca suratul hujuraat yaa ayyuhal lazina amanu laa yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakuna xayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaabi biisal ismul fusuqu baadal iman yàlla waxoon na yonent wa sallam ne yow yonent ñu góor ñi bu ñu jigéen ñi bu ñu rey seen moroom jullit ñi jigéen ñi amaan na yow ki ngay reetaan dégg nga xëy na sax moo la gën amaan na yow ki ngay xep moo la gën fa yàlla kon nag bul xeeb benn julit kon julit yëpp nag leen màggal ndax julit ñëpp kenn lañ kon nag a ah, nañ ni ko dégg nga kuntum xayra umatin uxrija linnaas yéen doom aadama yëpp dégg nga yéen a gën ci xeet yi rawatina xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax da ngeen di digle lu baax di tere lu bon te yàlla waxoon nañu ne kon nag innamal mu'minuuna ixwa julit ñëpp ay mbokk ko kon dañoo war a jàppante dañoo war a bëggante yonent bi sallallahu alayhi nee na julit ak moroomu julitam ñi ngi mel ni birig ni ñuy tegalante ngir kër mën a taxaw dañuy toppalante benn ngelaw du xaj seen diggante kon julit yi noonu la ñu waroon a mel yonent bi saa salaam waxaat na julit dégg nga ak moroomu julitam mi ngi julit ñi daal ñi ngi mel ni dégg nga jëmm jëmm benn baaraam sànqalañ bi lu mu tuuti tuuti bu feebaree jëmm ji yëpp danañ yëg ne dégg nga am na luy métti jëmm yëpp ay feebar bopp buy métti jëmm yëpp a koy yëg bañ buy métti jëmm ji yëpp a yëg naka noonu bopp buy métti jëmm ji yëpp koy yëg naka noonu biir buy métti jëmm ji yëpp ñoo koy yëg kon nag jullit ñi it noonu la ñu war a mel kenn ku ci dégg nga am lor wala kenn ku ci feebar ñëpp yëg ko moo tax yàlla wax nañu ne gis nga ñàkk gu ñàkk yëgante duñ def taawunu alal birri wa taqwa mu ne lépp lu ngeen def rek dee leen dimbalante ci mbaax dee leen dimbalante ci yiw dee leen dimbalante ci yërëmante moo tax mu ne laa xayra fii kasirin min najwaahum ilaa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna naas mu ne laa xayra amul benn yiw fii kasirin ci li gën a min najwaahum seen seen groupe yu bëri yéeg seen yu bëri yéeg seen grand place yu bëri yi seen waxtaan wu bëri yi yëpp yàlla mu ne amul njëriñ ñu ne ko yàlla yëpp mu ne ilaa man amara bi sadaqatin lu dul koo xam ne nee na di sàngam day dafa feebar nañ ko dimbalee ci ay ordonnance am di sàngam de këram xamu dépense nañ ko dimbale ngir dépense am di sangam day nañ ko génnee luyaas wala di sangam amul lu mu lu luyaas nañ ko ci dimbale yàlla mu ne loolu mooy li baax wala koo xam ne diw ak diw dañoo xuloo diw ak diw dañoo meroo ab diire ngi nii nañ fexe nuñ leen juboo jubóowalee ñu jubóole leen moo tax yàlla ne ilaa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islahin bayna naas kon groupe yi yi ci am lii rek yooyu mooy yi nga xam ne moo am solo loolu mooy li nga xam ne dégg nga moo ñuy dimbale taawunu alal birri wa taqwa te it nañuy dimbalante ci mbaax dégg nga ak ragal yàlla mooy lan nañuy jàngala nañuy jàngalante nañuy waxante dëgg nañuy yéeneante jàmm kenn ku ne na yéene sa morom jàmm dégg ñu soppante def ko te yàlla tax kon nag bàyyi ne laa taqirana bul xeeb musliman benn julit waaye ku wax rek yaa ngi xool noo ko sewelee yaa ngi xool noo ko xeebee yaa ngi xool noo ko doxee dalee doo xem ci moom sax waaye yaa ngi doxee dal sëriñam yaa ngi doxee dal sëriñam sëriñam loolu amul solo su boobaa nag li muy jur mooy merante lay jur boodante xeet génnante jaasi dóorante te loolu lislaam tere woon nañu ko suñ bemoo ba meroo rek xuloo am fa tafsalu wa tasabariyakum subaa mbëggeel gi waroon dox suñ diggante dafay jeex nga li ñu takkee woon te mooy yàlla subaa dafay jeex nekk rek yaa ngi gis ak péete ak ak far li koy waral nag mooy xeebeel kon nag bàyyi wax na la ca njël benn la laa tax xiran na bul xeeb musliman benn julit laa taskura te bul di waxtaanee ay bam riin ayibi doom aadama ayibi doom aadama yi na ko fi ni ñukk ne yàkk bu naqadi wala ay bu min ka xar yuraa wal ay bu ayib xar yuraa def nga ko gis min ka ci yow yow na nga gis sa ayibi bopp te bàyyi ayibi jàmbur yi waaye am na ñoo xam ne jamono ju ne rek ñi ngi lijjanti ayibi jàmbur su fekkee ne waxkat la bët bu set yaa ngi xool num juumee rek dégg nga ci benn aaya wala ci benn xaraf wala ci benn hadis nga xool noo ko gàggantee doo yem ci gàggante gi sax da nga ko jéebaane adduna bi yëpp xam ne kii dafa juum du noonu wala koo xam ne yaa ngi yàkkamte rek mu def mbir ñi ñi gàddu ko nit ñi ngàbb ko di ko wax loolu nag baaxul dégg nga ayib bi doomu aadama yi na nga koy nëbbu wala koo gis mu def ayib dégg nga ayib bi foo toll yaa ngi koy waxtaanee foo toll yaa ngi bëgg mu siiw foo toll yaa ngi bëgg ñi xam ko ngir suufeek ak dara darajaam loolu bokkul ci jullit kon nag laa taskura bul di waxtaanee ayibam riin ayibi doom aadama yi wal ayibu ayibi kay xad yuraa def nga ko gis min ko ci yow sa ayibi bopp yi na la doy gis nga boo doyloo sa ayibi bopp yi boo tëddee da nga di xalaat noo ko saafaraa moo gën nga nekk si ayibi jàmbur yi guddi ak bëccëg am na ñoo xam ne wax ci ayibi jàmbur yi moo leen gënal lekk moo leen gënal naan moo leen gënal jaamu yàlla moo leen gënal wirde te loolu dégg dafa bokk ci li nga xam ne lu bon la <clears throat> foru ba zi tim ray nii bëri na boromi bor dégg nga borom sagar axbara kaa ji rapp wala aqsama wallahi bu gëñoon benn mbir ci yàlla pour mu def ko bil mawlaa ci yàlla abarra dana ko baaxal moom yàlla dana def li nga xam ne moom la géñ xar rawaw lii solo nañ ko ci hadis yonent bi saa salaam wax na ne bëri na koo xam ne yaa ngi koy gis di ko xeeb ngir yëreem yu ràpp bëri na koo xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy gis di ko xeeb ngir dox na ba tànk yi xotteeku ndax amul lu mu war yow yaa ngi yor kat kat bu kat kat boo war tax nga xeeb ko ngir la nga war gis nga koo xam ne ma ngay bëgg a ci luyaas kër nga bëgg koo xeeb dégg nga ngir loolu yaa ngi gis koo xam ne dépense amul këram yow nga bëgg koo xeeb ngir ni nga bëree dépense ak yasa aju mbiram aduna daal yàlla jox na la ko moom nag mbiram aduna gis nga ne amul ci dara mi ngi sol yëre yu ràpp yu xotteeku waaye waat naa ne su waatoon ci yàlla lëm bëggoon yàlla dana ko ko defal moo tax mu ne fa rubba zittim ray ni bëri na boromi sagar wala ak sama wallahi bu gëñoon bil mawla ci yàlla bëgg benn mbir abarra dana ko def moom yàlla dana ko baaxal xad rawaw lii luñ solo ci hadis la benn kilifa dafa dem ci genn góor di ko tarbi tarbiya xam na fu fukki at ak juróom-ñett dégg nga di ko tarbiya de ko tarbiya ngir bëgg benn ismulaahil azam mu jox ko ko léegi nag ba nga xamee ne nekk na ca ba at yamat mu bëgg koo yi sëñ bi bëgg koo yeewi ne ko kaama yónni la marché ba nga ko yónnee ne ko boo demee jëndal nangam ak nangam ak nangam ba waaj a demee ca marché ba gis genn góor goo xam ne sikkiñ baa ngi wax tal mu sol dégg nga ay yëre yu rapp yëre yu xotteeku mi ngi teg ay saami matt di ko jaay bam koy jaay nak de nga ñu ne ñay garde mbir ma ñew nañ ñu ne ay tak der lañ ba ñewé ne ko fi nga lal ni waro fe lal dal di ko sonal pa bi jël ay bagasam dal di ko tasaré dal di de nga pa bi wax ñi dal di ko door pa bi nak de nga ma nga euh, fele mu ci suuf si ak rapayam ak lapayam mi ngi rapp mi ngi lapp boole kooku mi ngi sol yëre yu xoteeku mu jóg di dajale ay ay mattam nga waa ji ko ñëw jàppale ko ba nga xamee ne for na matt ya ba pare mu dem duggale ko sëriñ bi yónnee woon mu dem ci kër sëriñ ba ba mu demee sëriñ bi ne ko ban ma sër nga janoon tey tey loo gis ci marché ba mu ne ko man daal sëriñ bi tey sama xol neexu dara mu ne ko lu xew mu ne ko genn góor ca sàngam moom laa fekk mu toog di jaay la muy jaay ñu ko teg du noonu policiers ko da di ko dóor mu seigne bi ne ko waaw loolu dalaa métti mu ne ko waaw mu ne ko ismulaay lansam bii nga xam ne moom nga may laaj nga xam ne boo ko yoree loo bëgg def loo ne yàlla rek kon mu daal ne fayee kon loo wax rek yàlla def ko soo ko yoroon nooy def mu ne loolu su ma ko yoroon kon ñoom ñëpp lay rey ndax lii ni ma méttee kon ñoom ñëpp faagaagal naa leen kenn du ci des mu ne ko kon yow yeeyoo ismulaay lansam bii ndax ismu bii man ma toogee ci zahir ñëpp jublu ma dégg nga maam xabool ñëpp di jublu ma di ma liggéeyal di ma dawal sama ak marwa di ma defal lépp lu ma bëgg ismu bi ma toogee di ko doxal nii góor googu moo ma ko jox kon yow heyowo ko góor googu xeeyoo ko am na ko dégg nga te ko yow boo ko amoon nga def ko kon yow heyowo mbir mi kon nag nañ bayyi di xeebante ki gis di ko xeeb sax amana yow sa njëriñ lépp mi ci moom léegi nag suñ jamono ji ngir nga nekk ab sëriñ faaw da ngay yor yi dërëm te loolu ngir nga nekk ak taalibe bu ñuy tagg jamono ju ne faaw da ngay yor yi dërëm bu fekkee da yor daal ay sagar wala nga yor ay yu xoteeku wala xamoo loo joxe kenn du la respecté kenn du la jox cër kenn dula la nawloo te loolu nag dégg nga mooy yàq jamono forobasi tim ray nii bëri na aji boromi sagar akbara ka aji rapp wala ak sama wallahi bu gëñoon bil mawlaa ci boromam abarra borom ànd ak moom ca lam bëgg xat rawaw lii solo nañ ko ci hadis bàyyi ne beneen laa baa ngi nii laa taturanna bu lor musliman benn julit walaw zahër donte feeñ na durun ay lor xalaa yedi ci loxoom de ban ci baax fantafi ni na nga ko jégalul yàlla yow nag bàyyi ne bu lor benn julit fexeel ba sa loxo bi bu ci yëkkati lor si benn julit sa làmmiñ wi bu ci lor benn julit sa xaatir sax fexeel ba na ngay xaatir lu baax ci doomu aadama yi ndax alquran ne woon nañu inna baada zanni isun wala tajassasu yenn njort yi sax bàkkaar la kon nag buñ ko def buñ gëstu buñ lu ñëtu nañu rafet ci jaamu yàlla yi rafet ci jaamu yàlla yépp koo gis rek jàpp ne mooy waaja su yàggee nga dajeeg waaja waaye koo gis ne du moom da nga da nga waaja dana la romb dégg nga sax mën moom kon nag bu lor benn julit yonent bi saa salaam waxoon na ne julit daal al muslimu man salima al muslimoona bi yadihi wa yi julit dëgg soo ko bëgg xam mooy koo xam ne nit ñi mucc nañ ci loxoom mooy kattanam dégg nga wa lisaani ak làmmiñam julit dëgg mooy koo xam ne nit ñi mucc nañ ci làmmiñam buy wax lu rafet lay wax bu lu rafet lu rafet jeexee mu noppi te yonent bi saa salaam nee na dëgg mooy koo xam ne tarko maa laa yaan yi lu ko amarul njëriñ du ci dugg waaye koo xam ne jamono ju ne guddeeg bëccëg yaa ngi ci grand place ya yaa ngi doom aadama yi dégg nga boo leen mën a jaxaseeg sa làmmiñ yaa ngi jaxase nekk na maam te yonent bi saa salaam nee na na maam du dugg xaajana laa yadxulu jannata na maam yow daal lu nit ñi jaxasooyee rek loolu nga bëgg wala koo xam ne jamono ju ne yaa ngi xool nu nuñ loree doom aadama soo amee kattanal tëj ko yaa ngi lijjanti nuñ ko tëjee soo amee kattanal tas mbooloom yaa ngi lijjanti noo ko tasee soo amee kattanal mu ñàkk liggéeyam yaa ngi def noo ko no no nu ko ñàkkee soo amee kattan dëddale ay doom adama yaa ngi xool noo leen dëddalee soo amee kattanu rey doomu aadama sax da nga ko rey te dëgg-dëgg bàyyi ne laa taturoon na bu lor mukk musliman benn julit walaw zahër donte ma ngay feeñ sax durul ay lor donte moom ma nga jël ay lor di la ko teg mu ne na ko jéggal ndax yonent bi saa sallam ñett li nañ ne am na benn waay goo xam ne dafa bañoon yonent bi fii yonent bi daan jaar di dem ci jàkka ja dafa daan def ay dég dafa teg ay xottu butéel daraan jël mbari tam war ko tuuri ñëw xapp ko kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi toog ab diir gisul loolu mu ne ana waaji ji doon def lii ñu ne ko noonu yàlla bi daa feebar yonent bi dem seeti ko ba muy dem nag la waaja gën a bëgg moom la jënd sérité yóbbaaleel ko ba mu demee rek dégg nga waaji dafa ba mu nuyoo waaji ba mu ko déggee dafa tiit daal di jog bi yonent bi ñëwee mu ne ko dégg man kat dama gis yi wu bëri wu ma daan gis gisatuma ko ma laajte la ñu ne da ngaa feebar mu ne ko yiwu lan mu ne ko dégg ya xottu butéeli ya mbalit ma gis naa nga ko indi si nga ko ma ko doon gis foofu gisatuma ko ma jàppoone ne mbalit mi yiwu nga ma yéene ndax man maa ngi am njaboot te yow xamoo njaboot soo ko indee fii sama njaboot man nañ la ko yóbbul subaa ma am ci yiwu yàlla mu ne ko dëgg-dëgg jubli wu ma ci woon loolu li ma ci jubli woon mooy naqadal la li ma ci jubli jubli woon mooy nga dégg nga wax rek doomu aadama yi ngabbu la sa dara yàqu nit ñi bàyyi la loolu laa ci jubli woon dégg nga yonent waaye dëgg-dëgg yaa rafet jikko noonu la daal di tuubee ànd ak yonent bi saa te boo gisee yonent bi lim dugal ci lislaam ci jikko ju rafet mu ëpp fuuf lim dugal ci lislaam dégg nga ci jaaseem moo tax yàlla ne ko wala kunta fazzan xaliizal qalbi lan fadoo min hawlika faafu anhum wastaghfir lahum wa saawirum fil amri kon kay laa taduranna bu lor mukk musliman benn julit walaw zër donte fi ma ngay feeñ durun ay ala yeday tukkee ci loxoy doom aadama yi jëm ci yow kon nag faxtafit na nga leen jégal dë ban ci baax jamono ju ne rek buñ la meree na nga leen jégalul yàlla ndax yaa yonent bi nee na silman xataaka wa asin ila man asa ilayka wa qulil haqq walaw kaana ala nafsika képp koo xam ne bañ na la dégg nga du la woo téléphone de ko woo téléphone ku la ku la dagg fexeel ba na nga ko jokku ku xuloog yow fexeel noo jubóog moom ku la bañ a jox fexeel noo ko joxee ku la xañ fexel ba yow bu ko xañ ku la du nuyu bu la rombee du la nuyu boo ko rombee nuyu ko boo amee jox ko jikko ju rafet kon kon kay nañ fexe roy jikko yooyu bàyyi ne laa taduranna bu lor musliman benn julit waaye nga ne su ma xokkee ma xokk ko da ngay dof dolu di nga xam ne maa la gën a dof déedéet moom naa dafay dof doflu yow fexeel nekk nit boo ne ko dangay ngay dof dolu nga xam ne maa la gën a nekk nit waaw da ngay bon bonu nga xam ne maa la gën a baax dégg nga loolu daal mooy mooy julit kon nag laa taduranna bu lor mukk musliman benn julit wala zahar donte ma ngay feeñ dégg nga durun ay lor xalaa yedey yi tukkee ci ay loxoom ma ngay jël loxoom di la lor ci liggéey ma ngay jël loxoom di la lor dégg nga ngir nga ñàkk nangam ak nangam yow daal faxtafiri dee ko jégalul yàlla de ban ci baax gis nga yonent bi saa sallam ba nga xamee ne nekk na makka di woote ñu bañ koo gëm mbir ma métti lool bu dem dëkku nijaayam ya dégg nga da leen xoo ba leen woo ci lislaam mooy taayif ñi bañ ne duñ ko gëm kenn ki ne ko su fekkee ne yàlla la yónni da nga rëy ci man bëkku yàlla yónni man waxu manumaa wax ak moom kenn ki ne ko su fekkee yàlla yónni hu la da fen te kuy fen man du ma mën a wax ak moom ñii daal di ko booleeg xaj boole kooki dof boole kooki gone ñu koy sànni ay xeer yonentu bi daaw nday saan ànd ak Zeyd ibnu Harisata ba nga xamee ne dem nañ dégg nga ba ci bërëb yonent bi saa salaam deret jàngay noc deret jàngay nacc ci yaram wi Zeydun moo ko taataan waaye deret jooj bu laaloon suuf àdduna tukki foofa mu toog rek dégg nga fara ñaari malaaka ñëw ne ko man maa yor xeer bi nga xam ne moo nekk penku kii ne ko maa yor xeer bi nekk xarfu ñaari xeer yi séq àdduna ñoo ko yor bu la neexee léegi ñi tàppalante ko àdduna raaf mu ne ko pour lan di mu ne leen pour lan ñu ne ko ngir niñ la def nii mu ne allahuma ifir li qawmi fa innahum la ya'lamun yow yalla yalla nga jéggal suma nit kon gis nga jéggalu leen yalla ba pare la yalla ne la ya'lamun xamuñ su fe kon xam nañ kon nii duñ ma def su fe kon xam nañ ne jàmm rek la leen yéene su fe kon xam nañ ne man may rahmatan lil alamin su fe kon xam nañ ne man may rahmatun muhdatun lil umma su fe kon xam nañ ne man ma leen di gindi su fe kon xam nañ ne seen teranga lepp mi ngi ci doon julit deug deug kon duñ ma def nii waye ñaka xam moko waral motax billahi tay buñ jël suwaton da leen xam xam ne lañ doon def yonent bi ñoom lépp daañu réccu te ñoom ñëpp seen mu dee jamono réccu nañ loolu ñu doon def yonent yàlla saa sallam kon nag laa taduranna bul xeeb bul lor musliman benn julit walaw zër donte ma ngay feeñ durun ay lor ala yadayhi tukkee ci loxom de bëgg si baax faxtafiri na nga ko jégalul yàlla nga ne ko lu tax mu ne fa inna zal xalqi naka mindeef yii xebaadulaay ay jaami yàlla lañ falaa tadur bul lor mukk ak yow sama mbokk mi xebaadalaa benn jaamab yàlla gis nga mindeef yii doomu aadama yi ay jaami yàlla lañ yàlla ñu leen fonk lañ ndax yàlla xoolal lim mbindeefam yi bëree mu jël ko def ko muy doomu aadama xam nga ne yàlla fonk na ko def ko muy xalifaam ci kaw soof xam nga ne yàlla fonk na ko kon nag ko yàlla fonk la kon nag bu lor kenn koo xam ne yàlla fonk na ko te xoolal yonent bi saa salaam nee na am na benn jurit boo xam ne benn jigéen boo xam ne dugg na safara ñu ne lu ko dugal safara mu ne dafa am benn muus boo xam ne daf ko tëjoon ci néegam joxut ko mu lekk joxut ko mu naan ba muus ma dee ba mu demee yowmal qiyaam loolu ko dugal safara kon kay gannaaw muus rek la lor loolu daal ko kon ko lor doom aadama foo jëm ku lor doomu aadama foo jëm ku xañ doomu aadama xelam dégg nga liggéey ko mu dof wala nga jëf ay mbir ba mu dof dëgg-dëgg kutiba alayhi annahu man qatala waahidan fakaannamaa qatala naas jamii'an wax nañ ne képp ku kenn mel nga ne rey nga adduna yëpp ku dundal kenn mel nga dundal nga adduna yëpp koo ko wala nga ñàkkaloo ko liggéey xoolal ñan ñoo war ñaat ñaati nit ñoo waroon nekk ci ginnaawam ñoo xam ne war nañoo teddee ci teddam ñoom a bàyyi xel la fa inna zal xalqi naka mindee fii xebaadulaay ñoom yëpp falaa tadur bu lor mukk ak yow sama mbokk mi xebaa dalaay jaamab yàlla walasta déet ngay nekk tardaada gërëm man ka nga xam ne yeduru ma ngay lor habdaka sa jaam wa in asa donte sa jaam moo ñaawal donte sa jaam moo tooñ fattaqiina rabbaka dëgg-dëgg na nga ragal sa borom bàyyi ne yaa ngi nii yow doomu bi doo gërëm mukk ku lor sa jaam doo gërëm mukk ku lor sa doom doo gërëm mukk ku sa rakk doo gërëm mukk ku sa xarit dëgg-dëgg ku sa doom donte sa doom sax dégg nga <clears throat> moo njëkkee saaga waaye buñ ko saaga dana la naqari buñ ko dóoree dana la métti buñ ko xasee dana la métti lépp luñ def sa doom wala ñu def ko sa jaam wala ñu def ko sa rakk ba sa mbindaan sax lépp loo xam ne def nañ ko ko dana la métti kon nag naka noonu yàlla it dégg nga doom aadama yëpp njabootam lañ kon nag bu loor benn njaboot bu lor kenn yow daal na nga nekk ci kaw suuf rek di rafetal na nga jëmbat garab yi na dundal garab yi na nga dundal bàyyima yi dégg nga na nga taxaw doomu aadama yi na nga rafetal jëm ci ñoom sooleen leen mën a jox jox leen soo leen mën ta jox jël wax wax ci rafet jëmee ci doomu aadama yi lii daal buñ ci tënku woon wallaay aduna neex waaye nag jamono ji aduna bi li fi nekk mooy xebante bodd ko wante lorante xasante te dëgg-dëgg yàlla taxutoon mu suuf ku defar suuf dañ ne ko atajalu fiha man yusiru fiha wa yasfiku dima wa nanu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka xaalamoon léegi nag su fekkee ne yow da nga dégg nga bul may malaaka yi ndam déedéet yow daal àndal ak yàlla ca la waxoon ini yaalu maa la taalamuun mooy danaa fi indi ñoo xam ne ñooy defar suuf ñooy jëmbat garab yi ñooy dundal bayima ñooy bëggante ñooy jokkante duñ xuloo duñ xasante dimbalante duñ xeex duñ saagawante dëgg-dëgg lii mooy julit te lii mooy xëdëf bi ne moo taxoon yàlla indi doomu aadama ci kaw suuf lii buñ ko defee rek nekk jaamab yàlla xàqan moo tax bàyyi la laa tatlu bi bul sàkku mukk alhezza tedde nge li dal xalqi fa fi fii bilaa tahazujin lu dul da ngaa sàkku teralu xendal maliki fa yàlla laa bul sàkku dara ci doomu aadama wala bul bëgg dara ci doomu aadama ngir kawe yi si mel lépp mi ngi laa tafrahan bul bëgg بول كونتان بي انومين شي قيول غا خمني قيول ل قيول للي قيول نلكو وفرح na nga bég bi man ci ka xam ne ana am mooy xéewale ina xiltaa ndagam xam nga xel fukkalu niamatin gépp a xéewal te zuulu dafay dëñ dafay jeex de duuna man walis ki nga xam ne asda mooy sa mbërtal xéewal yi fasaka gis nga kii joxe kéewal noonu albaqi moo fi des fi kulli zaman ci bépp jamono laa tax xiran bul xeb mukk musliman benn julit laa taskura te bul di waxtaanee xëy bam riin ayibi doom aadama yi wala ayibu gis nga ayibi kay xat yuraat def nga ko gis min ko si yow yow daal gisal sa ayib rek fexe noo ko réparé te bàyyi bàyyi ay bi jàmbur yi for basi timray ni gis nga bëri na boromi sagar axbara ka aji poussière ka aji rapp ka aji tilim wala aqsama wallahi bu gëñoon dogu bil mawla ci yàlla abarra yàlla baaxal lam bëgg xad rawaw lii solo nañ ko ci hadis laa taduranna bu lor musliman benn julit walaw zahar donte ma ngay feeñ durun ay lor ala yadayhi tukkee ci loxoom yoral faxtafiri na nga ko jégalul yàlla rek deux ban ci mbaax na nga koy jégalul yàlla te di ko layal fa inna zal xalqi naka mindeef yi xibaadullaahi jaami yàlla lañ fala tadur bu aqi yow sama mbokk xibaadalaa bul jaamab yàlla bu lor benn jaamab yàlla walasta den ngay nekk tardaa di gërëm man ka nga xam ne yaduru ma ngay lor xabdaka sa jaam wa in asa donte sa jaam moo tooñ fattaqiina rabbaka na nga ragal sa boroom in uridu ila l islaha mastatatu wa ma tawfiqi illa billahi ali tawkal wa ilayhi unib su jubee ci yàlla la bu jubut de ñàkk fasala ak xam-xam bu doyut ñu ngi leen di ziyaara bu baax di sàkku ci yéen ñaante de leen ñaanal yàlla salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu